nuyu naa ñëpp fii laay tàmbali yéen ci seen revue de presse teel sa kaasu kafe nga guux bala ngay naan bay si mbaleex moo xam ne li xew ci réew maskanu sunu gaal yëglekaay gi ne aw ay du yam ci boppul borom yëglekaay gi ne coow li nga xamante ni moo di coowal rapport bi ba ngay wéy di jur jëwee ci réew maskanu sunu gaal ma ne ginnaaw manifestation gi nga xamante ni moo amoon ci réew ba ñetti nit ñàkk seen bakkan am na geneen gone goo xamante ni gone gu tuuti la toll ci dugg adunaam buntu adunaam yëglekaay gi na ñàkk na bakkanam ginnaaw blessure yu métti yu yi nga xamante ni moom la jëlee ci manifestation yi amoon le réveil yëgle kay ma report bi ci jëmi boppam faatati na faat na ñeenteel bi doomu aadama ci réew mi askan sunu gaal ñeenteel bi faatu na te dara da ko waralul ci élection yi ci jëmi boppam fomm mes nan kook din ko fomm ak des koy fomm dong woy fipp yu génn ci mbedd ba jëye am libération yëgle kay ni bi wuj na boromam moom ma nga nekkoon ca UGB université ba ñàkk na ñaari ndongaam ci coowul report Ahmed Diallo bokk ci membre yey liggéey ca IGB naa étudiant yi ci jëmi boppam ñibbi ak leneen seeni kër lu dul ay certificat de décès source ay yëglekaay dem ci ay source ma nga naa ma ma nga fekk baax ca Kabrousse Prosper Clédor Senghor ma bu ñu sukkandikoo ci ay jege ñaaleem moom ci jëmi boppam mësta sax bokk ci ñuy mars mbaa xelam di ca dem waaye keroog manu faate naataangoom bi la di woy Alpha Tunkara moom ci jëmi boppam ca la révolté nag daa di fippu ni moom dootul dellu ginnaaw daa di fippu nag révolté wu Samba sax ana lan moo tax ñun mënuñoo dee ànd maase booloo faatandoo ak ñii di défendre patrie bi mës sa manifester waaye mer googoo tax mu daal génn manifester yëgle gi ne am ci ay blessure blessure yaa ko yóbbu laaxira laaxira yoo jommeeti naa jommeet laa wax ngañ Demba Touré nga xamante moo ne woon bëccët génn ci réew mi sunu gaal bu mu ñibbisee lanu ko karkaral jàppees nanu ko yóbbu noonu ko fi nii temme laa wax ca rëbës keneen ka jàppalu ñibbi lay wuyoo Ami Njaay ñibbi kamu jàppalu kooko xaana saw lay wuyoo ginnaaw message whatsapp yi nga ko topp di ko envoyé ña ngi ko jàppee ca Mbàkke yóbbu ko ca brigade de bu Ndakaaru Njaay jal Jóob moom téer bi lee réew mi lee ñëpp naan élection kañ lay am ku ne naan dat wi bim toll nii tembe xaarunu dara lu dul moom dat wi lay yëgle gi ne ma njiitum réew président Macky Sall mi ne koy xaare niki tey la fa àddu wax ak réewum mi fa fixé prochainement ginnaaw waxtaan ak diisoo dialogue gi nga xamante moom la bëgg Sud Quotidien yëglekaay ni ma très prochainement à partir de 19 njiitum réew mi dina jàkkaarloog e e na banaa ma ndax njiitum réew mi bi muy wax naan nañu matérialiser pardon ak réconciliation ndax ma njiitum réew mi la fa séene àddu wax ak askan wi ci jëmi boppam moom sax ma nga naan Sidiki Kaba ak seen administration bi ngir ñu fexe ba élection yu jaar yoon am ci réew mi enquête yëglekaay ni ma njiitum réew mi tey lay wax leen mën naa am itam sax tey mu annoncé ab loi d'amnistie l'express quotidien yëgle kaa ma njiitum réew mi dina jël kàddu de wax tànnab dat ginnaaw waxtaan wi nga xamante ni moo kay faaw mu am njiitum réew mi la dal xelam moo di jalab l'observateur yëgle kaa ni ma lépp moom dong moo ko mën a leeral mooy maître du destin bi moom njiitum réew mi ni ki lay wax ci ngoon teral quotidien yëgle kaa ma suspense dëgg la a ak askanu sunu gaal ci écran yi lu tolloog njiitum réew mi président Macky Sall ko nag ci miir bi ba ma àgg ni wax te moom donga fa ne moom laa wax processus électoral bi boole ko nga xam moo di sëriñ mbub muy dànkaafu ak a indexé njiitum réew mi président Macky Sall ki député ne lu jin njaaga ñooy njaag ubbil Thiès info moom nga xamante ni moom la doon amal Thiès wéetu ca dee am nañu ko jàppale ay acteur de développement yu bare bare tàllal nañ ko seen loxo ni ko aw àndal direct news kaay dikk ak ñun ci mbirum Khalifa Sall waxati ci li nga xamante moo di polémique bi jëm ci wàllum nationalité bi direct news samp laajam di laaj naan Khalifa Sall est toujours français ndax moom français la ba ñëgëneem déet moom Khalifa Ababacar Sall moom la ñu baaraam yëgle kaay gi ne ma Khalifa Sall moom ci jëmi boppam yor na carte d'identité nationale a française numéro ba lépp joxe na ko date de délivration ba le 30 décembre 2005 ba le 29 dem na banaa ma yor nañ yeneen information yi waree ni am na ndekee yeneen candidat yoo xamante ay double nationalité dëgg lañu di laaj naa ndax lii du jur ay jafe-jafe ca conseil constitutionnel ba 24 heures yëgle kaay ni ma ca Kolda ci jëmi boppam Mamadou Malado Diallo ci jëmi boppam ak ñañu àndal ñoom fi toll ni tembe nu bëgg moo di élection xamle l'observateur yégle kay xamal ma mbir mu yéemate doy waar ni ma benn waay ci jëmi boppam la fekk mu daal faatu ci ab auberge moom nag ba muy dem ca auberge ba ma ca ànd na ko copinam yégle gi ne lu ama des moom faatu na ana ko faat yéeme na te doy waar réew mi quotidien sport plus ni ma li doy waar moo di accident mbay ñaa mii di sunub attaquant yégle kay ne ma attaquant bii di mbay ñaa def na accident ca Italie Sa Thiès ci di rakk ci a na ñetti raison yi dong war naa mën a tax Sa Thiès daan sunu làmb yëgle kaay ni ma yëral xët mi lépp nga ca biir <laughs> dina ko daanam déedéet waaye doy na waat siy laati bu baaxee rek ba sama clavier ñu dem ba suba ak jàmm ak salaam yéen a ngi doon déglu seen revue de presse wolof ak Fall Damel càggeen jëf jërë ngeen jëf yi xarit yeeg ngi ñuy teewlu un peu partout ah, ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di leen kontaan di leen jox seen wàcc waaye di leen xamal ni nag ñu ngi kontaan ci yéen de te itam di nangu wax naan doole jën ndox la waaye ñun suñu doole yéen la loolu ñun dañ koy nangu euh, nangu nan ko bu baax a baax a baax ndax yéen a ngi ñuy jàppale yéen a ngi teewlu revue de presse bi yéen a ngi koy partagé yéen a ngi ciy def lu ngeen mën ak lu ngeen mënul tarkal la donc na nañu ci yen bu baax baax a baax jox leen seen wàcc waaye kontaane leen encore une fois di leen wax rek ni leen bég nañu euh, café gi des koy simbalee xoo am na kuy laaj ndax kafe am na ak amul am na 78 la 453 48 86 rek euh, ngeen daal di simbalee xoo maa la wax lii ñu jaajëfal bu baax a baax ñëpp ñi nga xamante ne ñu ngi jënd ci café gi moo xam sunu xarit Eva borom centenaire ca Ndakaaru Njaay jël Diop Daouda naam ñing maa ngi lay nuyu bu baax a baax sëriñ Abdou Salam Sarr maa ngi laa biggi di kontaan ci yow di kontaan ci Ousmane euh, sama xarit ñing euh, di kontaan bu baax a baax ci képp koo xamante ne rek yaa ngi nuy bàyyi xel te itam di safoo ak tiitaro revue de presse bi maa ngi lay nuyu bu baax a baax a baax euh, sama sama sama pompis boobu ah maa ngi koy nuyu bu baax a baax di ko kontaane di kontaan ci képp ku ñuy teewlu moo xam nga nekk ci biir réew mbaa bitim réew ana faatu ñu ngi sama xarit maa ngi laa bëgg bu baax a baax di la kontaane itam di kontaan ci ñëpp rek ñi nga xamante ni ñu ngi ñuy bàyyi xel un peu partout Sénégal ay ca mi ngi noonu euh, li nu gis léegi nag dooy na waar trop trop trop trop euh, di euh, étudiant bi nga xamante ni faatu na di ñeenteel bi doomi aadama bi nga xamante ni moo faatu ci fipp yi nga xamante ni moo amoon ca keroog ba ne rek dañ dañuy fomm élection yi donc étudiant bi nee ñu musul bokk sax ci ñiy manifester xelam musu cee nekk waaye keroog bi ñu faatee euh, ki nga xamante ni moom moo di naa tàngoom bi euh, ci la fipp rek daal di nag moom jeex na jeex na dañuy dem xeexi comme ñëpp ca la demee nag euh, ca manifestation yi ci la amee ay blessure blessure am yooyu nag ñoo ko yóbbu rek fi nga xamante ni moo di laaxiram mu nekk mbir mu doy waar ñu ñaanal ko yàlla xare ko ci àjjana yi gën a kawe mastaw ak njabootam mastaw itam ay ay parents ay mbokkam yëpp ndax ku ne xam na Euh, ci ñàkk koo xamante ni ku dis ci yow la ku la proche ku la jege donc ñu ngi koy mastaw bu baax a baax a baax di ko naqarlu itam di ko mettitlu bu baax a baax a baax a baax a baax a baax a baax mu nekk koo xamante ni dem na à fleur de lage nekk ci xale boo xamante ni day soog a dugg ci euh, digg dooleem euh, donc euh, digg buntu àddunaam di moins donc mu nekk loo xamante ni lu lu lu metti la ñu ngi siyaar ñëpp di biggee ñëpp di jox ñëpp seen wàcc waay la ma diggee moo di képp ku commentaire ci revue de presse bi ak foo mën a ne ak mu mën di doon ci réew mi dinaa la commentaireal tudd saw tur comme ni nga ko defee ci commentaire yi donc pour laa fekk ci kaw maa ngi koy biggee bu baax a baax laat Diop sama nit la maa ngi koy biggee bu baax a baax ji bi baax Issa Dangoura sama xarit la Fatoumata Bintu Diallo ah, Abdou Kane maa ngi koy bëggee El baax Ba di bëggee Kéba Dia Ndoumbétine maa ngi koy nii bu baax a baax Mia Diouf ma ma Cheikh Cheikh Modou Diakhaté sama xarit la maa ngi koy bëggee Ayib Faye maa ngi koy bëggee Lamine Ndiaye di nuyu Cheikh Omar Diop di bëggee Dame Kounta di bëggee bu baax a baax a baax Ndiaga Wade di bëggee bu baax a baax Modou laay Bey Michel tin sama xarit borom Thiès Modou maa ngi koy bëggee Bey Fall maa ngi koy nii bu baax a baax Cheikh Wade. maa ngi bëggee ma bëggee Guèye di bëggee Omar Diallo di bëggee euh, ki nga xamante ni mooy itam sama xarit bii di euh, Ibrahima Ndiaye ma nga naa ma wàcce nga batterie bi de waaw waaw gis nga revue de presse yi de waaw fi ne nii nag dañ ko dañ ko bëgg a wàcce rek temp ko ndànk bañ a yuuxu ayca foog naa yéen a ngi ko yëg mi ngi baax ayca kon mbokk ñu joxante dig daje ba ba suba ak salaam yàlla na ko yàlla ci réew mi askan sunu gaal yéen ñuy teewlu mbokk yi xarit yi dëkkandoo yi ngeen jëfati